salaam salaam de retour sama gars yi ah de retour pour la pour le live entre Reug Reug et Bombardier live boo xamante ne wax dëgg yàlla mun nañ ne présentation la gannaaw bi nga xamante ne euh, gannaaw bi nga xamante ne combat bi Jam Production taxawal na ko il y de cela à peu près deux mois ou trois ou même plus ah Jam taxawal na ko depuis depuis quatre mois daanaka trois mois quatre mois euh, parce que bu Reug Reug bëriwee balaa Franc di bëreeg Forza. te Reug Reug Bombardier taxaw donc mine de rien combat baa ngi taxaw au mois de fin avril début mai booba léegi mai juin juillet août septembre cinq mois combat bi taxaw mais cinq mois combat bi taxaw ba léegi Reug Reug ak Bombardier defaguñu benn face à face ñoom ñaar jàkkaarloowuñu fenn mais tey nag mun nañ ne du face à face tey lu ñu fas yéene def ak ñaari mbër yi tey mun nañ ne que bu mu tàng pour mu neex ñaari mbër yi faaw ñu jàkkaarloo ah kii wax jox sa morom mais tey présentation la ñu fas yéene def ak ki nga xamante ne moom mooy Reug Reug ak ki nga xamante ne moom mooy Bombardier ñoom ñaar amateurs yi gëj nañ leen dégg xamuñu ci lu ñu ne hmm? ñoom bëgg nañ wax dëgg yàlla seetaan leen ñoom ñaar ñu waxante ay kàddu jokkalante ay kàddu loolu da ciy am solo macha allah da ci am solo bu baax a baax. Euh, donc ñu ñu commencé ak jamaïcain dugal Reug Reug dugal Bombardier ma ne ko ñu commencé ak jamaïcain dugal Reug Reug dugal Bombardier Pulo Ba maa ngi lay nuyu bu baax itam di la béggee bu baax a baax a baax a baax a baax ah di la jox sa wàccuwaay macha allah Reug Reug na nga def maa ngi lay ziar di la nuyu di la bàyyi nga nuyu mbokk sénégalais yi nga xamante ne ñoo lay seetaan en direct sur Instagram fu mu toll nii. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ku si nekk sa tur ak sa ah. mhm. jàmm yàgg lool te wér mhm. dina nuyu yow besan sa liggéey rafet na trop macha allah mhm. macha allah macha allah ak lu làmb yëpp ñu ngi lay nuyu mhm. bu baax a baax dëgg la waaw di santaat yàlla di nuyu waa caare géej aw ma seen fay fukki penc ñaari waaw mu daal damay jum maa ngi ziar ñëpp képp koo xam mu ngi mu ngi bëggee rek maa ngi lay nuyu yàlla suñu borom defal la jàmm amiin amiin amiin amiin daal mbokki mbëri nekk ci are géej yëpp su ni Xaadim Njaay Xaadim Njaay Isaa Mbay Baye Ma Ndione ah mm-hmm. Ousmane Diop Ahmed Dem mm-hmm. ah kàpp yi gaa yëpp maa ngi leen di ku si nekk sa tur ak sa sant ak mm-hmm. sama rakk yi fi ne Pam Mbodj Zera non maa ngi daal bu ma daal damay juum di bëggee tamit sama grand Leyti ah, di bëggee grand Mor di bëggee ñoom Birane Dewur ah. ñoom moomu moomu moomu moomu ngom moomu moomu moomu caare di nuyu seex di nuyu biraan maa ngi bëggee ñëpp daal ma limee dama jum di santaat bu baax a baax di ñaan yàlla suñu borom bàyyi sama yaay ba si kanam kanam ak mboolem mhm. jullit mhm. léegi nag actuellement yaa ngi fan parce que gis nañ ni jamono ji li ngay déplacé wu dafa bëri xam nga nag international nag moo mel noonu euh, tey ñu mhm. gis la Turquie suba ñu gis la Dubaï ginnaaw suba ñu gis la Sénégal actuellement fan nga féetee ci ci ci àddina bi fu mu toll nii non instant bi maa ngi Dubaï yaa ngi Dubaay dellu nga. maa ngi Dubaay ba léegi waaw dellu naa waaw. ok léegi fu mu toll nii lan ngay préparer actuellement est-ce que danga nekk ci logique ku préparer Bombardier mhm. pour le vingt quatre mhm. décembre prochain. wala da nga mhm. nekk ci logique am benn combat MMA très bientôt. non bi boo bëggee dégg dëgg moom euh, maa ngi préparé maa ngi daal. Mm. ndax suba gi maa ngi dem suba maa ngi dem MMA ngoon gi ma dem salle musculation mhm. jour bu ne ak li liggéey danga mhm. jour mën nga dem liggéey boxing mhm. mardi nga dem liggéey kickboxing jeudi nga liggéey wrestling noonu la daal après euh, mercredi nga dem liggéey ja condition mais yëpp man fi ngoon gi yëpp damay dem gym après la mhm. man moom ñaar yëpp boole boo bëggee dégg dëgg ñaar yëpp boole yee ndax bientôt rek léegi ma am adversaire incha allah bientôt nga am adversaire waaw bu sooba yàlla ah bon incha allah waaw adversaire bi avant bombardier lay doon wala après bombardier non après bombardier lay doon après bombardier lay doon waaw ok kon fu mu toll nii yow ci grand bi nga focus à cent pour cent. à instant bi moom moom si moom lañ focus à cent pour cent ndax waaw. Mm-hmm. waaw dëgg la dëgg la léegi nag euh, di nuyu Sénégal yëpp di nuyu amateur làmb yi comme ni ma ko waxee léegi rek monde sport bi maa ngi lay nuyu di euh, man nag comme ni nga ko waxee rek man d'habitude bàyyiwuma lu ma nit ñi gis de trop bëriwuma lu may communiquer lu bëri damay génn rek def essentiel mm-hmm. su ma séparé maa ngi waat sama rôle nekk samay activité mm-hmm. li jot a li jot a léegi damay am benn jàngat jàngat est-ce que làmb ji du tegtal ñu ko dugg si làmb ji est-ce que du doon tegtal ci yow nga ñu ko dugg si ci làmb ji parce que dafa mel ni bi ñu làmb ji lépp dina lëndëm de. mais est-ce que du tegtal la. est-ce que doon tegtal bésu làmb ji nga ñu ko dugg si ci làmb ji parce que dafa mel ni bi ci làmb ji lépp dina lëndëm. ah man naa nekk de buñ ma buñ ma nee maa njëkk a dugg xam naa ni midi midi maa ngi estat mais nag. mais waa ji kan la waa ci si boor bi kan la. Ah? Ah, de moom laa bëgg mu tontul boppam. yow kii kan la. ah kii. rek yaa ngi ree bombardier rek. mu ne. ma ne yaa ngi reetaan mais Bombardier reetaanul de. ah ok grand bi <laughs> grand bi ki sa sa sa lii la sa booy moo nekk nii. Eh, maa ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar grand naka mu. sant rek yaa ngi am jàmm baax. ñu ngi lay ziar naka mu naka njaboot gi xale yi. waaye sant yàlla ñu ngi fi ñu ngi fi di la féliciter si combat combat bi passé. boobu léegi kii wuñ si. wax nga dëgg. parce que loolu loolu loolu fierté Sénégal yëpp la Sénégal bu génn di fayti moom xam nga drapeau Sénégal lay lay porté quoi. Mm-hmm. ngi la si baax euh, baax a baax. incha allah incha allah gravi. c'est que nag li li ngeen wax bi paase déglu ñu njëkk wax mooy li ñu xaw a jaaxal mooy euh, Bombardier yow da nga doon dégganteeg Reug Reug lu bëri. mais mel ni bu combat bi taxawee ba léegi sax dégganteeg moom même cadre MMA am nga ko conseillé mais lan moo tax. ma ne bu dee dafay fayat ak koo xam du Sénégalais du du Sénégal. waaw donc par sax si bopp. Mm-hmm. dëgg la dëgg la. mais mais mais mais euh, euh, Bombardier. ñuy dégg instant est-ce leer na nañ ci yow. waa instant bi leer na si nañ. waaw li ma la bëgg a laaj mooy gis nañ ni danga nga da sawar ci di bëri say rakk mais ñu ki say rakk seen communication day changé da am boo xamante ne da leen koy imposer ba nga xamante lan moo waral Bombardier xam nga mas wax ma ni boo seetloo samay communication bu yàgg yàgg yàgg yàgg naa ko wax ma ni hmm. boo seetee làmb ji si kaw dafa raf ay jiitu ay poids lourd ay ay VIP yàgg naa ko wax samay communication man il faut ñun biñ ci bi ñuy nekk xale bëgg a yéeg ñu may sance ñu doon bëreeg suñuy grand man moo xam ne am nga fit gëm nga sa bopp boo ci tollee loolu nga war def mooy tey nga bëreeg say say mag ñëw bëreeg say morom bëreeg say rak loolu nag il faut nga nekk nit ku nit ku gëm sa bopp nit ku bu gudd bu mën def loolu parce am ñoo xam ne bu ñu bëreeg seen i mag bëreeg seen i morom duñ fa rek pare nañ mhm. tey ñun ñii ñu bëreeg ñoom ñi parce que tey luñ mënti wax man yàgg wax nit warul soxor. Mhm. nit day def époque am jàll ñeneen ñoo def seen époque rëg-rëg ma jël ko ma ñàkk ko jël làmb si kanam tuuti dina mujj say loxoom. Mhm. Ama Baldé nga jël ko nga ñàkk ko jël si loxoom lay mujj. Euh, ku ni Sa Thiès nga jël ko après relève bi ñooñu la kon mm. il faut il faut war bëri man dama yàggoon a wax ni xale boo xam ni pourvé nga man par naa pour bëri ak yow te si xale yi tax ñu war a bëri waaw ci xale yi nga xamante ni ñoom ñoo prouvé mais tey man li may laaj rek rek mooy comme question bombardier bi rek am na nu mu fu mu dugg mooy gis nañ ni bombardier saa yu bëreeg mbër lu ci ëpp nag day ba bataille communication ba ci bés làmb ja amul mhm. benn mbër bu ko mus a gagné ci communication te ñu gis ni rek yow itam communication dafa nekk li nga fonk mais tey est-ce que ngay bëreeg bombardier da ngay bëreeg sa grand jox ko cër wala boog da ngay gëmloo say supporter ni danga koy duma di ko daan ba bésu làmb ja waaw bés euh, côté boobu lu ma si tontu du bëri quoi ndax tey jii boo xoolee hmm, ñun dañuy sant grand bi sant ko gërëm ko ndax lu mu def nii yombul daa may dégg xolu kiñaan ñaan xolom xolom moo rafet moo tax mu wax li wax nii ne làmb ji dafa manqué poids lourd ci kaw te wax na dëgg ki ci mel ni Ama Baldé Sa ah, ay ñoom Franc yii di ñëw ah, ay ñoom Koyenti yii di ñëw ay Siteu ñun ñoo yor relève bi ñun ñoo ko yor dëgg la ay ñoom Sando ñu ñoo yor relève bi kon mhm. tey boo xoolee grand bi may nañu chance ñun duñ am leen luñ koy wax lu dul sant ko mhm. gërëm ko mhm. waaw di ñaan yàlla suñu borom bis rek yàlla suñu borom may ñu ndam waaw mais duñ ko mës a dépassé suñu communication mais lu waral ci bés bi ñu jaay ka dinañ ko def incha allah ba xam ne ni maanaam am nañ combat bu rëy doonul combat bu ndaw mais duñ ko mës a dépassé te cër buñ ko joxoon moom nañ ko koy gën a jox waaw ah, moo gën a wóor de ndax suñu grand frère la xam nga ràmm ko ràmm waaw ramb waaw ramb mooy ku ku dox say xaaxaam ba ay dëg safatu la dara saf <laughs> loolu moo ah, muso ñu ngay xaar bala vingt quatre non a wax lu leer nee na la moom du ñeexum ñebbe kenn nee moom dara saf ko dégg ko mu ngi nii di la ko wax waaw dara safu moom waaw loolu moom war na ko du gan koo xam ne hmm. ay moroomam mhm. bëri ay magam mhm. bëri ay rakkaam bëri may ay rakkaam rakkaati rakkaat ay sens mhm. kon bu waxee loolu ñu nañ nga koy dëggal mais en tout cas daal géew ba incha allah rabbi waaw géew moom dina xam ne ni maanaam bés yi loolu naam ak bës bi moom du bokk quoi euh, euh, incha allah rabbi lan moo leen utalee rëg rëg Bombardier mi nekk deux fois roi des arènes lu musul am Sénégal. Mhm. daan Balla Gaye 2. daan Balla Gaye 2 ñaari yoon. Mhm. daan ki nga xamante ne moom mooy Modou Lo. daan fi mhm. champion yi nekk yëpp. nga ne nga ne bés bi mu doon am ute naag bés bi. non boo déggee ma ne ute naag bi mooy maanaam. gis nga lu si ñooñu wax nekkul si man. la moo leen utale ku ne kenn ku ne daa am yàlla suñu borom lu la may. dañ koy nangu. kenn ku ne mbër ñun mbër yëpp kenn ku ne daa am yàlla suñu borom lu mu la may mhm. mais man yàlla suñu borom damaa may man mën a bëri poids ba poids lourd mel ni moom poids lourd lu mu mënti toll mais anyway amu si problème mm. yàlla suñu borom damaa may ma mën a bëri mhm. kon loolu dama koy sant yàlla bu waaw bomb bës bës bës poids lourd duñu de <laughs> gaynde yu dégg jat ak gaynde yu jat ah na yàlla yàlla may lay wax ni yàlla yàlla may gudd fan gu yaram bala vingt quatre décembre yàggatul xam nga xam nga bës bëgg di am sañ-sañ ku am gëm-gëm te xam naa ni mu waxee <laughs> bu ko jëfee sunu combat mën a yàgg mën nañ mën nañ ko jàkk amateur yi foofu ndax xam naa Allahu akbar waaw du daaw rek gis naa la mu xeex ak la mu xeex ak Moussa Sarr mais mais mais waaw man li may laaj est-ce que tey ñama nga samp jaaga dëggal sa bopp li nga jàng ci MMA bi nga appliqué ko sa diggante ak Bombardier ci wàllum xeex bi waaw xam nga mooy li la MMA nga dóor nit ki ut mu kaawte mhm. nga kaa mu ñëw nga esquive dem sa yoon xam nga mhm. eh. moom lu ma koy wax rek moom daal lu mu mën a préparé na ko préparé ko wax bu rëy ah, loolu moo ciy tontu moom ma dégg xale bi lu la wax wax na si biir waxam ñaari yoon dafa sawar si bëri poids daa mën a bëri poids lourd. waaw. ma ne ko poids lourd du ñu benn ne <laughs> ni bu ma. Bombardier mooy wax mooy seral rëg-rëg di yëngal. mais musuma gis bomba ji bu bëggee combat yi kii dafa bëgg a jëli jiwaat couronne waa des arènes kii bëtam jéggi na rëg rëg <laughs> ma lay wax du caaxaan de. Ah, non non attends xoolal buzz. waaw. na yàkkale mu na maanaam ni mu togg naka yàkka ba pare doog xooli leneen. grand bi lu bëtam na la bëggu la daan rek daan avec la manière est-ce que est-ce que dégg nga bomba ji ni communiquer. waaw yàlla baax na nañ bàyyi ba le vingt cinq rek le vingt quatre décembre bi xam nga yàggatul dëgg yaa ngi réer de dëgg ngi jaawale man musuma réer nañ bàyyi ba ba le vingt quatre décembre buñ ko bàyyee dana ne mus ngaa jàkkaarloog mbër bu ci nekk ba ma simmeeku ba waa déglul bës ba ma simmeeku ba ma simmeeku ba sutee ko soom yi waaw ba daw wër géew bi si lay doo xam ne am na combat grand bi waaw bu soobee suñu borom mais grand gannaaw loolu message la. boo ko defee boo ko defee lu mu miin waay. non gannaaw miin na ko ci yeneen mbër. tàmm na ko gis mbër koy def loolu la wax. waaw dama boo soobee daw wër nga def lu mu miin. mais sooy bokkuñu nag loole problème bi quoi sooy ñoo bokkul. non Samson xam naa dañ koy jëlee waaw. Ah. <laughs> mais nag. waaw ah. ñëwee tey dama bëgg ñu waxtaan tamit techniquement ak tactiquement. keroog bi ñu mm-hmm. dégg euh, da nga ma ne bi nga gisee giri nga xam ni nga koy daane. Mm-hmm. mais koy daane. comme. Bombardier est-ce que xam nga nan nga daanee Bombardier tàmm nga ne face à face boo gisee mbër bi ngay bëril ci ngay daane est-ce que Bombardier xam nga noo ko war a daanee. ah bu ñu yàlla yàlla suñu bu ñu may ñu jël nii si kàttanu suñu borom moom Bombardier moom ba ba ma signé ba ba lekk xaalis ba si sama xel li ma jox wala bu may ñëw moom laay bëre ak moom. Hmm, kon stratégie bi pare na mu toll. pare naa si bu yàgg te loolu laa ñu appliqué bëre. tàmm naa la dégg ngay wax waaw. xaaral xaaral bës lamb da nga koy toll def ko da nga koy toll nga def ko presque dem seen. ah léegi nag man foofu ma toll mooy maanaam. foofa laa toll. Mhm. pour maanaam defar sama carrière la foofu laa toll. Mhm. yaa may dégg. Mhm. garaat dégg naa la. amul lenn lu ma koy wax lu dul que di ko ñaanal yàlla su borom defal ko jàmm. Mhm. moo fi def lu kenn deful doon deux fois ra des arènes. Mhm. may ay rakki rakkaat tam sens. Mhm. mais ma may sens noonu. maanaam dama ko mais maanaam tey jii man sama bët. gis nga Modou Lo li mu yor. sama bët foofu laa ko teg. xam nga moom xam nga moom jël na ko ñaari yoon. na doyal nag <laughs> na doyal bàyyi li muy jël. boobu xale xale xale bi kot na la dóor nee na mbir boo ci tollee da koy def boo ci paree nga pare ci dafa mel ni loolu message codé la. waaw non moom actuellement nii bu toll lay waxee. Mhm. mais nag bu mag du yàqu ngooñ. oui <laughs> ma bës. waaw. ma tegal la. Eh. nag bu mag bu ne bis bu mag lay dee. allahu akbar. nag bu mag li muy dee nag bu mag mag li muy dee si jàmm bariwul a ah ndax bi ma. bës baax na waaw bës. waaw sama nag bu mag bi sama nag bu mag bi ma yóbbul Abdou Karim. waaw si si màggal bi. waaw góor deux millions yi teg te si bis bu. non rey neex la boobu rey ko nag maa ngi ko gis naa ko da non non non rey ko. magi waaw nagu deux millions cinq cent waaw laa yóbbul Abdou Karim sëñ Abdou Karim ñu koy ñaanal ka bi ba si kanam a kanam bis bu mag nag baa <laughs> ah, nga fa ginnaaw bëtteeloo nag noonu lay nag bi deewul de hmm. xanaa naa bëgg ma xanaa naa maa est-ce que du ma la envoyé vidéo yi. biñ koy tëral nee la nag bu mag du dee ci jàmm. loolu loolu ah. la. mais loolu fu mu dee fan la dee. loolu du jàmm. loolu kon la moo balaa dee dëkkaa am. déggoo fi muy waxee. bu ku bombardier dalee ci sa dëgg ba ku bombardier di dal sama ngam. Ah, rapidité nga koy andil. non bul yow buzz. bul xam lu may indil grand bi yow yore sa yow yore sa sa wax rek mais li may bëre grand bi mu ngi si waaw te que kattanu suñu borom le vingt quatre décembre dinaa ko woon di nga man lu tax mu gën ma neex mooy maanaam du arrière ragalul mindeef buy dox ci kaw suuf te loolu damaa neex mm. Mm. lim la ñeme voilà dégg hmm. naa yeneen garaay bu la mayee sens du maanaam mën nañoo arrière arrière ba temps bi jeex. Hmm. mais moom day bëgg a ñëw pour daan. man loolu taxul hmm. neex ma. ok da ngeen jixaat. dañuy jixaat. ah jixaat ak bomb bomba ji xale bi nee na day jixaat ak de. loolu mënul ñàkk sa dafa dafa a xeex léegi léegi dafa léegi dafa mën a xeex dafa bëgg a xeex il faut ñu xeex. <laughs> léegi damaa kontaan si léegi day xeex rek. ah rek dégg nga ko de. ah dégg naa la bëgg a dóor quatre fois noonu yow noppi rek xam naa fu muy waxee. mais est-ce non léegi léegi. léegi xeex de xeex lay def léegi. macha allah mais bomb bi nga seetaanee eh, rëg-rëg ak Bouchra dëgg la kontaan nga ci rëg am lu mu indi Sénégal mais est gis nga ci moom ay faay yoo xamante ne xam nga ne booy bi dese naa njort ci yenn côté yi yoo xamante ne mën nga ko exploité ci làmb ji. ah xam nga combattant moom bu nekk mën nga gagné mais nga def mën nga def ay faay. Mhm. mais man l'essentiel bi di mooy bi muy combat ak Bouchra dama ko supporté cent pour cent ba moment boobu muy combat xooluma sax faay man moo am la gisoon parce que dama ko seetaan live directement. Mm-hmm. mais comme nag moom comme maa moom dañu am combat. Mm-hmm. comme dañu am combat faa mm-hmm. dégg mu léegi xamal la ni que bu ko xawee ci la xam ci moom fi jaar ba daan ko moo tax. loolu loolu loolu waxu combattant hmm? rek xam nga combattant moom. Euh, dañoo dal xel rek mm. tey bu toogee euh, xaw ma lu reere nii toog si fatayam bi naan ay bi combat bi bi muy taxawee nii xam koy daane loolu loolu loolu reer bee neex rek mm. waaye xam na ni moom si moom xam na ni nga préparer ses ses stratégies yu bëree bëri mais mën nga ñëw la nga séentoog la nga mu doon comme yàlla ak lu muy sént ak lu muy xam nga làmb mën nga ñëw préparé nii lay def def nii def nii nga ñëw loolu yëpp du fa am. Hmm. nga ñëw leneen leneen am. Hmm. waaw mais xam nga léegi làmb boo xoolee yàgg naa ko wax. même combat léegi boo foo si vingt quatre sur vingt moo lay seetaan. di xool say failles di xool say fo di xool say faiblesse. loolu am léegi léegi technologie moo ba loolu amatul sax nekkul nekkatul sax ba léegi mu ngi may suivre maa koy suivre bu lool sax xamante nañ bien avant xam naa ko xam na ma hmm. ah oui hmm. day préparé ak staff ba préparé sama staff ñu ñëw la vingt quatre jëflante incha allah hmm. xaman da ngeen xamante yan façon xamante noonu avant làmb looloo ma jaaxal non non non xamante ci sport la xamante ku nekk façon façon de faire am quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw. est-ce que ñaar daaw ngeen waxtaan. si daan nañu waxtaan daan nañu waxtaan si yu bëri man amu problème boobu man damay wax ni sax tollatuma si ngàmb foo xam ne dama naan kii si équilibre la nekk ak sama équilibre man xale boo xam ni am nga si man yaakaar ne mën naa la dolli plus boo ma woowee dama lay jël waxtaan su ma jeex bu ma bu war a jëflante si sport damay jëflante ak yow mais li ñu jaaxal mais daal waxtaan si lu bëri bëri comme ni may def ak ñu bëri mais dañ dégg ni que yenn saa boo waxtaanee nit ba pare après boo jëlaatee avance am du neex ci moom de non non bu tiital booy waay rek grand bi est ce que ay missiles yu mu la jot a sànni. bës bës waxal grand bi man aw ma tiitukaay. ah waxal ko ko sa bopp. tiitukaay si man grand. waxal moom waxal ak moom man fi ma fi ma fi ma dëkk eh, ragal amu fa man du ma tiit si làmb. li may mooy maanaam tey li wax ni li mu wax noonu dama ko kay nangul tey mën nga préparer préparer li nga bëgg a bëree. wala li nga bëgg a def nga ñëw ba si géew ba gis fa lu fa gën a yomb nga def ko dem seen loolu du ma ci toog loolu boo mën jël laay bàyyi mu wax ak yow man ñëw gis lu gën a simple loolu def ko mais ni ma ko gisee nii moom moom xam naa ni xam naa dinañ wax naa la ko léegi si biir wax dafa bëgg na moo tax euh, foog mu foog mu wane borom si combat foog ñu foog xeex tuuti. <laughs> léegi nag man du ma la tontu ne billahi du ma la tontu. xeex moom xeex moom dañ koy def mais garaaw dañuy xeex. newatuma fi de. waaw moo tax ma la bëri dóor nañu wax dinañ xeex dinañ bëri. Mhm. waaw loolu moom loolu mënul ñàkk moom. mënul ñàkk si. ndax garaaw bi il faut bi il faut mu il faut mu ñam il faut mu droite bi il faut mu encaissé ka droite bi ma ma ma maa doon encaissé sama droite non sama droite ah nee na mbaa doo encaissé droite bu rek ba ma génne mbaa yow bu anyway amuma problème pour encaissé droite am man nga ni rek rek bu encaissé contrat dina continuer ndax man xam naa xam mhm. moom li muy waxee ni noonu lay bëree man xam naa loolu mhm. you bi muy bëre ñun man na wax sax dugg ñu si bëre mhm. mais ay combat yëpp ay combat yëpp dañ koy xool dañ kaa seetaan du ma sa arrière yaa ma dégg gaynde la te jàmbaar la ba pare boo fi def lu kenn deful kon ñun lan moo ñu woo dañ koy respecté ba le vingt quatre décembre incha allah si géew ba dañuy jël respecté si peek ne la tegee ka hmm? si ginnaaw saaku bi la may xaaral ko may ndil ka nag jukkoy jukkoy jukkoy jinne ji laa koy indil bu bu Reug Reug jëlee sa coup dina continuer bëri <laughs> bër sa waaw maanaam li nga li nga li nga bëgg a def doo ko wax. rek Bombardier tontu na ci question yi ba des dernière question xamal ne ni loolu bëgg na nga mos droite bi. ma mos droite bi. waaw anyway problème pour manqué sa droite am. loolu du dara. mais gëm nga ni ma encaissé ko. gëm bu jëlee sa dina continuer bëre. sama coup non du ko bu du continuer bëre. Hmm? non non. lay wax ni yeah waaw damay wax nii rek nekk si man la non li nekk si man la nag loolu moo nekk si man sama coup boo ko jëlee doo doo bëre doo bëre waat loolu moom lu nekk ah. la waaw. boo dinañ xeex dinañ xeex dinañ bëre dinañ xeex dinañ bëre. waaw xam nga xam nga xam nga di lekkat gi niñu bëri mooy tax ma ne la loolu mën nga toog si géeju tamit naan di na xorom ah ak bokk kon nag bismillah dinañu dinañu xëy dinañu bëri mooy géej gi am na xorom na ko sama ah, kon nag bismillah Reug Reug est bi nga ko nee. nga nee sama boo ko jëlee doo bëri da ngay waxtaan nii rek bës ngay waxal wala da foo wala. waaye man kay daf maa def ay ree sax. gannaaw <laughs> bi nag bu mu la def rek. bës bës waaw waaw. gis nga ah, maanaam gis nga coup coup coup. gis nga xale bu ndaw su bul dóoree da nga koy yëg. waaw saa xam tuma la la kuy posé cent trente kilos wala cent quarante kilos dóor la ku mm-hmm. bu la ah. dóoree ku yow nooy def ah moom maanaam nu muy xamee bopp moom ni mu xamee ni maanaam loxo droitam ah, diis na man noonu laa xamee sama droite diis na fedee mm-hmm. nga ma bu ñu doon teg benn frappe boo xam ne maanaam da nga koy frappe muy marqué ci ay muy marqué comme gars yi la ñuy def noonu mm-hmm. bu ko defee man ma ñëw ñu toog ma taxaw mu taxaw mu dóor ma dóor di nga xam kan moo gën a diis loxo ma ak moom. loolu. loolu sax dinañ ko def yow bar nga a diis ñaari yoon. <laughs> ah <laughs> loolu du problème. loolu. incha allah. <laughs> machine yooyu noonu. moom bëgg machine yooyu aw ma si problème. non dinañ amul benn problème. te rëg-rëg dama lay fàttali mooy bombardier Sénégal wàllu musculation nee nañ moom moo ci mën ci Sénégal li muy yëkkati ci lu diis ci ay développé couché amuñ mindeef bu koy yëkkati Sénégal noonu <laughs> la gaay euh, awa ah, man moom wax dëgg ay man moom ay cinquante kilo la antal ay vingt cinq kilo ay cent kilo loolu laa antal Euh, euh, mais ñemewoo ñemewoo dem est-ce que grand bi lu mu attan yow attan nga ko. kan. moom lu mu attan attan nga grand bi. si musculation. waaw. Euh, fi ma mës a jaar yëpp laa lay wax. Hmm. fi ma mës a jaar yëkki lu diis. Hmm. gi nga Zag hmm. am na ko fay entraîné bolo la tudd. kooku après boo fa nga laaj ko man li may yëkki couchage. nga dem Dalifort. Mhm. am na comme ni wës la tudd. Mhm. boo demee ba foofu nga laaj ko Reug Reug ñaar lay yëkk couche mhm. est waat moom waxaale wu ma ko presse moom waxaale wu ma ko démb rek laa yëkki démb rek démb rek laa yëkki sept cent kilos. ci presse. non non. Euh, am bu fekkee wàllu couché couché épaule maanaam couché couché laa la Escouade bref xool moom ay du man maay xool lu ma neex ma yëkki nga non loolu loolu mënoo ma se topp da ngay dee non yow gannaaw nag yow neexu ba neexu mais li nga reeree neex rek yow sponsor boobu nga toog moo neex mane kon si bolo boobu ñu koy nuyu au passage bolo xam naa ko bu baax waxuma la loolu yow sées bi nga toog non bi nga toog moo neex moo tax nga ne ma loolu boo ma toppee musculation damay dee. non yow yaa ko. mën musculation lu ma mën a yëkki mënoo kaa yëkki. da ngay wax rek. wallaay laa duy caaxaan. li may lu nekk wallaay maa ngi leen di foofu. Ah, mais loolu loolu loolu ngeen war a teew ko yaa ma jiitu si li nekk bu lëndëm. waa léegi eh, yow yaa yow yaa yow yaa la ataara xam nga la. yaa ñu jiitu si nekk bu lëndëm loolu wax ju yàqu la. invité ma invité ma saa boo bëgg yow na nekk sax biir caare. non duñ dem sax biir caare ñëwul sax biir caare waaw. yow invité ma saar bu la neex bu la neex nga nekk biir caare laa la allahu akbar. gàllankoor damay bañ ba vingt quatre décembre. nga ñëw gis ci nga ñëw ñëw ba le vingt quatre décembre naan ma maa def la ak nangam nangam loolu laay bañ combat bi dañ ko bëri rek mu jeex ku ne def yoonam. fañ ak fañ gars ah, yi. bëri na trop. <laughs> nañ bëri. man de moo gën si yow dem yoonam. boo ma médical ci waaw. non moom kay dala moom du ko def. moom day gaañu sa ñëw bëre. <laughs> yow tooñ nag de. da tooñ de. Marie Marie ci borom bi nga tudd léegi maa ngi koy passage. mu ne ci borom bi nga tudd maa ngi koy passage bu am expérience ci musculation. ma ne ci borom bi nga nuyu léegi laa bi nga tudd ma ne maa ngi koy nuyu passage parce que ku am expérience ci musculation. non kooku kooku kooku. voilà borom baax la des fois dañuy échanger di waxtaan ci ay domaine de musculation parce que man dama dama dama dama gëm entraînement dama bëgg entraînement. tey bu nekkee parce que ñëpp am dëgg la voilà donc li ma la mooy xam naa ni euh, buzz. Hmm. Jamaïcain tëgg na combat bu neex de. da nga ko tudd rek muy yegg si bombardier Jamaïcain tëgg na combat bu neex ñaari mbir dafa ah. feeñ ci bi jamono ji bu ci njëkk moom mooy. machine ah boobu ñuy teg machine boobu ma dóoroon keroog jamaïcain ba yónnee la vidéo bi waa hmm. Aidu Tigre sax am nañ machine bi ñoom ñaar nee neen ñu dañuy dóor ci machine bi Reug Reug nee na ko suñu dóoree nga xam ni maa la gën a diis loxo Bombardier ne ko suñu dóoree nga xam ni maa la gën a diis la ñaari yoon loxo beneen bu ci des Bombardier nee na ko tànnal saal bu la neex ci senegal ma fekk la fa li may yëkkati mënoo koo yëkkati Reug Reug ne ko bu ñu yëkkatee nga dugal médical jamaïcain lii la waa Buzz maa ngi lay ziar bu baax di nuyu amateur yi ñu seetaan yëpp. macha allah. di nuyu ñaari mbër yi muy Reug Reug muy Bombardier. Oh. Mm-hmm. yaakaar naa bokk nañ ci ñaari lutteurs yi gën a respecté contrat Sénégal. Mm-hmm. waaw man maa ngi door a jëflanteeg ñoom waaye yàgg naa ci mm-hmm. làmb gis yàgg gis promoteurs yi jëflanteeg ñoom. musuma dégg promoteur xalab leen ci wàllu contrat. combat bi nag idée yi bëri na ci projet yi bëri na ci comme li Bombardier wax Reug wax ko mhm. ku bëgg fu fanaan la ak ku bëgg ku ko wéttali waaw mhm. ah, ah, yaakaar naa suti ni loolu yëpp mu ngi sunu projet dinañ leen woo daje benn salle mhm. Bombardier taxaw ni Reug taxaw lépp lu ñuy wax ñu prouver ko sénégalais gars yi teg seen bët at waaw muy ci côté balance muy ci côté musculation bi muy ci ouais médical laay bañ de. non médical. non médical non dama koy daw. médical non médical dañoo non uyul sa jëm. Mm-hmm. jëm. waaw grand bi sunu grand teg fii mu dem na o oh, médical yaa ma gën a xam. nañ ko bàyyi rek. non sànq la doon dóor sànq rek doon dóor sànq. say médical waaye temps moom médical doy na non non sànq sànq sànq nga wax lu am solo nga ne grand bi même moom moom day kii di ko di ko bëree médical kay médical kay kaafatan bës bës. waaw. comme sànq ci ci euh, combat bi bi ma koy taxawal. Mhm. dafa am sama benn xarit bu ma ma ñaari xarit nga tëgg ñoom ñaar ay xarit lañ. Mhm. moo tax. sànq sax commencé naa tiit ne ko nag liñ naan nit ki fu sa muus yem foofu la sa ndox tàmbali man dugg naa ci erreur bu ma xamul ndax ñaar ñii dama leen a xàmmeetul <laughs> ndax ñoom ñaar yëpp kenn ku ci nekk <laughs> yàgg naa gis sa signature tey ñu ñëw fii di tàggante man man commencé woon naa tiit bës waaw ne waaw mbaa mbaaru sama xarit bi nekk France Alain li mu doon wax la ñaar ay xarit nag waaw ndax rëg-rëg ku ko xam-xam ne bisa musul sedd waaw ku ko xam-xam ne bisa musul set waaw tey ñoom ñaar ñu dajee fii ah ku ci di puudar sa morom di ko maquillage man moo tax jam <laughs> jam xam nga lii du xam nga lii du signature waaye nag waaye nag mais oui la mais maanaam grand bi da koy jox cëram moom lay yelloo moo fi def lu kenn deful sunu grand frère la waaw ñu mës dépassé mais gis nga euh, lu bis bi laaj pour jaay ka dama koy def I don't care ah yéen <laughs> jam sax nee jam sax nee na lu mu xoolal. Eh, gis nga eh, eh, bañ ay doon keer rek rek Bombardier bañ ay doon keer de. <laughs> buzz. ay doon keer ay doon keer boo koy wax xam ne. bi ku ko tardé tardé combat ci àddina. Mm-hmm. ma gëm naa tey. dootoo ko dabu sa carrière tey gëm naa loolu tey ndax man xam naa ñaari champion yi ñaari champion yi ma jëflante mhm. te dama yàgg wax premier jour bi may taxawal combat bi laa ne mhm. une heure damay tëj stade bi li ma nekkoon juguma ci mhm. dèjà nga ne nga ne pour nga ne Bombardier promoteur bi ko mës a tëgg dina la porter plainte ne la yow yaa xamul woon ni ngay jaay sama événement waaw waaw loolu laa waxoon duguma ci Bombardier su pare dina xam ne ñu ko doon tëgg ak ki ko tëgg bokkul ñooñu jox des nañ ko jox cër des nañu xam xam nga nit di nga gis benn benn benn kii boo xam ne doo xam di yor koo xam ne doo xam valeuram mm-hmm. mm-hmm. xam nga soo gisee sànq yaa ngi koy wax sax da ko junj mm-hmm. ne dama tëgg ñaari combat royal combat bii dañuy teg couronne Texas ndax roi international ñaari mbëri ñoo fi jógee di dem di def MMA man nag dama leen a bëgg tàqale ba buñ fi jógee ñoom ñaar bu kenn dem MMA kenn kee koy teel dara. waaw ah, mais jam déggoon naa nga ne combat bi innovation mu na cee am mun nañ ko bañ a ci géew mun nañ ko bëree ci cage lan la Bombardier xalaat ci loolu. waa ñoom ñaar dañ nekk ñaari lutteurs yoo xam ne kenn du dellu ginnaaw ndax ñoom dañuy bëree ci fële ci MMA ba kenn ku ku sonn di fëgg. fii tamit CNC waxtaan nañ seen ñoom ñaari mbër yi accepté nañ dinañ indi lu bees tàq maanaam mën nañu bëree ba kenn tibb suuf jé yëkkati abandonné na doyal na <laughs> lamb ji la la lamb ji doole jàpp pare bës eh. xam nga temps yi eh. coow dafa bari am ay promoteur di di di di di di ñaamu ci ginnaaw man nag gannaaw bi ma leen dàqee ci communication ba pare mm-hmm. Bombardier ngi nii Reug Reug a ngi nii mm-hmm. Bombardier ñaam ñaari mbër yëpp kenn ki dina bëree juillet kenn ki dina bëree mois de mai waaw Bombardier parce que quatre vingt quinze pour cent combat am taxaw na Reug Reug quatre vingt dix pour cent mois de juillet jam production lay bëri. jam lay wax ni waaw non ndax xam nga ñun ñëwuñ ci làmb pour fond. ndax da nga ay adversaire Bombardier ndax Bombardier dafa am ñetti adversaire yoo ko tegal. Bombardier am na ñetti adversaire ba ñeent. Reug Reug kasaalika noonu ndax ñoom ñaar kenn ku a bëre ak yow. Mhm. Bombardier nii mu ngi ci contrat am na mbër yoo xam ne bu ñu sañoon seen combat ak ñoom taxaw tey. mais Reug jam dafa am lu ñu bëgg xam nga bëri lañu wax nag mais ñaari mbër yëpp nee nañ dañu est ñi ñu samp xeex bi ñu signé ko ak promoteur bi ñu cinq minutes soog comme ñoom ñaar dañuy MMA. non man man moom barki Seydina moom ñoom ñaar yëpp ñu ngi may dégg. Mhm. ku si ñëw une minute nga yor duma la ko baal man loolu souhaité ma ko si ñoom ñaar. Bombardier ndax pare nga sa diggante ngeen samp jaaga cinq minutes xeex su ñu signé ko ak Jamaïcain ngeen soog a bëri. bës <laughs> non connexion bi day yéex léegi mu toog. bës bi Dieng ndax pare nga samp ak Reug jaaga cinq minutes ngeen xeex ngeen signé ko cinq minutes soog bëri. non cinq minutes dafa ndaw nañ premier round bi yëpp jaag. Reug Reug. bu bëggee nañ nañ ci boole beneen round nag. allahu akbar. dem. contrat bi dinaa ko defar yow xam nga ne man moom ku bëgg fu mu fanaan ak ku ko bëgg ku bëgg ku ko wéttali la li ma jaaxal man musuma gis mbër bu xeex ak Bombardier ñaari round benn round sax nit du ko xeex ak Bombardier nañ ko def dix minutes njëkk yi rek nañ ko def nañ samp jaari dix minutes njëkk yi premier round combat bi mooy mooy mooy Balla ak Massamba Yacine borom baxanam curu caaram yi moom laa lay wax rek maanaam jamay kay xamul lu mu tëgg jinne la non non xam nga lu tax xam naa li ma. voilà combat bi. combat xam nga xam nga lu tax man ma xam li ma tëgg. xam nga man lu tax ma xam li ma tëgg. ndax bi bi may gëm bi ma koy gëm ñu ko gëm ci réew mi bariwul. dëgg la am na ñu ma ci jot a waxtaan a neneen rek rek Bombardier laa bëgg a tëgg dañ doon ree. Mhm. ba moo tax premier jour bi ma taxawalee bi ma ko taxawalee ma wax ci li ma ci wax. Mhm. ndax su ma bàyyi woon ba lépp sotti boo ci waxee dañ naan dafa tombé. Mhm. man dama xam ñaari champion yi ma boole xam ñaari mbëri seen image fan la toll ci àdduna bi mais jamaïcain nga baal ma tey ñi seetaan live bi diaspora bi lañ nekk bopp di international lëg international sa combat bi mënuñ ci am ay face à Canada États-Unis Allemagne France ci yeneen réew yi parce que jot na itam ñu ñu delloo si face à yooyu ci bitim réew non loolu fii ak fan yu néew di ci dégg loo xam ne musuñ ko gis ci làmb senegal incha allah musul am ci làmb senegal te incha allah rabbi fii ak fan yi néew di nga ci teg sa bët. ndax ñaari ñaari mbëri ñoo toll noonu bés boo bëggee dégg dëgg fu nekk ci àdduna bi la ñuy amee contact ay nit ñoo ñuy woo téléphone carrément en personne nañu dañu bëgg ngeen indil ñu ñaari mbëri. maman bi may wax ak yow mun naa la woon ay preuve yu leer yow xam nga ci dara quatre réew yoo xam ne bokkul ay différent différent. ah man de ñoo xam ne dinaa jéem fii Canada. ñu tuus fi lu neex face à face fi lu neex. waaw ñoo xam ne ñoom ñooy demande pour ñu yóbbul leen ñaari mbëri réew yu bari nag ay autorités yi mag ci réew yooyu ñoo soxla loolu. Mhm. kon ñoom ñaar wax dëgg yàlla ay fierté sénégalais lañ. Mhm. fierté sénégalais lañ ndax fu ñu yóbbu drapeau Sénégal ci wàllu làmb dafa kawe. am na jamaïcain euh, tey présentation kese la woon ci live Instagram du face à face ndax face mooy ñaari mbir yu taxaw ate kon jam ñu bàyyi ñaari champion ñu tàggatoo yow nga tàggatoo ndax suba dañu am bés bu mag Mama Lamine ak ki nga xam ne mooy góor a soog ci arène nationale ak El Hadji Ibrahima Diop jamaïcain looy tàggatoo waa li may tàggatoo mooy comme fi ma daaneel sànq rek Bombardier na àdduna bi yëpp xaar combat am ak jam production moment bi nag moom comme li mu wax rek bëri naag ay moromam bëreeg ay rakam bëreeg ay magam tey jii ñi nga xam ne nii ay champion la ñu ngi ci làmb ji bëgg a bëreeg Bombardier képp ku sa chance nekk jàppal ne sa combat ak Bombardier dina taxaw fan yi ndax soo gisee bëgguma ci annoncé dama taxaw am benn principe bu may bañ kon du ko def mbër mënul ne ci contrat nga bëgg a taxawalaat combat am waaye Bombardier ak Jamaïcain quatre vingt quinze pour cent combat Bombardier taxaw na incha allahu rabbi kasaalika rek tamit ñaari mbër yëpp ñun ñoo leen di bëreloo incha allahu rabbi waaw champion yi nga xam ne ñu ngi ci lamb bo yi nga xam ne ñëpp dañuy souhaité pour bëreeg Bombardier mm-hmm. am nañ quatre adversaires yoo xam ne parce que ñëpp taxaw nañ am na ñu ngi ci mën a cité saate Sa Thiès àdduna bi bëggoon nañ ko Bombardier Franc àdduna bëgg nañ ko Bombardier Siteu àdduna bëgg nañ ko ba ci Bombardier Ama Baldé ba ci Bombardier ak Gris Bordeaux. donc sa yaram tàng na de xaar lépp lu ne mën naa am ñun xale lañ dañoo ne ci yoon bi bés dafa am loo xam nag amateurs yi ñoo koy wax man dama gis ne ñoom ñoom ñoom Manga ñoom Tyson ñoo leen fi jëlee ñoom ñoom ñoom Bombardier ñoo fi jëlee ñooñu mbër yi di ñëw ñoo fi bëgg a jëlee Bombardier ñoom a waa promoteurs yi mag yi ñoo leen jëlee. wala mille neuf cent soixante ba léegi dañ fi war a nekk am mise à jour du am. ay waay jam ay waay jam. jam non non xeexuma mise à jour dafa war a am ci lépp lamb ji. kaw gaa ngi changé chaque année mu changé. mille neuf cent soixante dix ba tey promoteur tat promoteur yi ñu doon gis si kaw ñoom lañ. léegi jam loolu waxtaan spécial la ak Lamine bàyyi mu toll nii dépassé nañ ko largement. waaw ñoo soxla loolu saaru Bombardier ñoo soxla ay ay tat yi bees yu leen tëgg. Mhm. ndax nag jamono ci mise à jour yi gars yi nekkoon seen bopp yi ba léegi moo fa nekk te amateur dañoo soxla lu bees. bàyyi ñaari grand champion yi ñu nag ak amaat. ok ok bàyyi waaw jàmm jàmm xaaral tuuti waaw jàmm jàmm maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi koy delloo. di dañu doon waxtaan lu bëri ma ne la jeune mais yaa ngi contribuer si développement wu réew mi. dëgg te réew mi toll jeunes yu mel ni yow la soxla <laughs> moo tax man damay sawar damay sawar pour liggéey yow parce que jeune moom ambition la la ñaanal bés bi si wut muy réussir total yaa nanu à quatre vingt quinze à quatre vingt dix pour cent pour bu bii jàllee ñu entamé leneen comme nag mu ngi sa loxo li ba wax aussi tamit combat bi li tax mu solo dafa am dimension internationale dafa nekk ñaari yoo xam ni ñoom la ñu gën a xam niveau international parce que MMA moo tax kon nag jot na aussi mu am ay signature yoo xamante ne ki Sénégal fu mel ni Canada fu mel ni Belgique fu mel ni France fu mel ni États-Unis war a def ay face à face de présenter leen ñan ñuy mbëru sénégalais yi nga xamante ni ñoom la ñu gën a xam au niveau international loolu c'est très important te di la wax ni combat bii combat la bu am importance sama carrière te dinaa leen wax lan moo tax di ñaan yàlla sama adversaire bi bëree bu rek yàlla defal ko jàmm parce que tey il faut moom jàmm pour ñëw mën a mën a communiquer fan incha allah yàlla may ñu doon sedd guy bañ a fekk coono booy jëm ñu gërëm bu baax sa liggéey moom c'est extraordinaire rien à dire gërëm waa Mbour di gërëm sama comme des na yeneen face à face il faut lii présentation la woon rek mais xam nañu face à face bii di ñëw incha allah bitim réew lay doonee kon Bombardier lay tàggatoo Reug Reug itam tàggatoo mbokk mbelum bi jeeg caalaan. waaw di nuyu jama di nuyu sunu grand Bombardier yow tamit bës amuñu sa fay ah. ñu ngi lay siyaar bu wér di ñaan yàlla suñu borom yàlla na jàmm yàgg Sénégal loolu te wér. waaw di ñaan waa Caaray Géej yëpp nañ waaj combat bi incha allah le vingt quatre décembre yàlla suñu borom may ñu ndam bu si barke Seydina Mohamed lenn rek waa caalaan jonwaar ñojoor falya basaar basuur waa ngajoor ñëpp maa ngi leen woo waa nangaan sàmm waa beela gi waa gànjaay kaolack waa joofiyoor waa fimla képp arandoo si fimla bi yëpp maa ngi oo ñëpp ma juum ak fukki penc ñaari leen wax na bi seen combat la yaa di oo ñoom ëboo faal waa asalem ñëpp maa leen woo si combat wax leen nag combat bi doon na combat boo xam ne bu ñu fonk la tan incha allah rabbi dañ ciy am ndam si kàttanu suñu borom di bégg ñëpp di bégg sama grand frère Bombardier motul mille kees tey moom dégguma nga wax loolu non xam nga tey lii présentation la rek ñi ngi ñu ngi yeneen ñu amaan dinañ am yeneen face à face dañ kay réserver gannaaw bi dinaa ko jëndal dama koy xoolal lu bees tax laa koy laa koy génnal incha allah rabbi <laughs> na ma xaar maa ngi ñëw ndax waa mbuur la <laughs> coof coof bu bees lay doon ñëw lekk teg coof bi. <laughs> ma ne Mbour loolu kàllaama la loolu kàllaama coof bu bees sax lay lekk. tey ma xam nga mbëri yi ne wax ay mille quinze ay ay ay dog yooyu yooyu yooyu yooyu fii dox de. dina dox nag. nu man génn di faj. leneen laay génnee. non mbiru géej moom bu si dugg génneel leneen rek. mbiru géej. baax na. macha allah macha allah. ñi ñoo ñaar ñëpp doylu ñu que maa ngi koy sax ku leen ci bàyyi mun nañ ci fanaan ngi seetle sa morom mais jamaïcain lii la leen andi rek waaw di estafu ñaari mbëri mhm. ndax tey lii démb lañ ko Bombardier ñu ngi sant Moussa loos ak ménager père Aline Gueye wax dëgg yàlla dañ ñu ubbil porte yëpp ci combat bi jàppale ñu ci ci côté yëpp kon dañ leen di jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal leen jàmm defal leen xewal lii mooy làmb bu mbër yëpp meloon ni ni làmb day avancé jógee na ci niveau bi dem ci di nuyu tam rëfam ku ci mel ni père pa nuyu bu baax di ko defal mention spéciale Leyti seen ak Modou seen ñoom tamit den defal mention spéciale ndax tey koo ci woo rek danaan la waxal mbër mi ñoom may nañ seen mbër liberte am nañ confiance seeni mbër te loolu mooy àdduna li moo mën a dundal làmb tey suñ leen woo ko mbër ji naan damay dem saal wala rëg rek naan damay nelawi tey ndaje bi ñu def seeni ménagère yombal nañ leen ko ñoom tamit yombalal nañ ñu suñu liggéey kon day jaadu rek pour ñu remercier leen ñoom ñëpp xam ne yéen pour war liggéey ak ñoom ci làmb lu bari dañuy door a commencé rek nañu xool indine bi fan lay mujjee en tout cas kontaan naa ci ñoom ñëpp di ñaan tamit ci réew mi jàmm al amateur yi nga xam ne biti yëpp ñu encouragé yal na leen yàlla defal sàmm leen sàmm seen bépp sénégalais bu nekk bi réew yàlla jox la tànga ba ba na si waat ci réew mi lii yëfu ndaw ñi la képp ndaw rek événement bi sa événement la xalaatu kenn xeebuñu ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci événement bi ñu dugal seen loxo allah ku la bëgg jàppale rek na la bind Instagram tu es très réactif macha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulah gërëm ñoo xamante ñoo doon seetaan en direct euh, encore une fois kontaan histoire de Cédric Doumbé bi tout à di féliciter bu baax a baax mooy Reug ci profession professionnalisme bi mais surtout aussi grand bombardier ci professionnalisme bi waxtaan nañu ci respect ku ci nekk soñente na morom allah kon xam nañ le 24 décembre dinañ am plateau bu neex asalaamaaleykum wa rahmatullah à bientôt